Eh, Panjanko nañu xool naka la eh, defe situation bi xaaral ma seen la fi photo boy bi ak sellu daleen ak jabar sellu dalen moom ak jabar sellu dalen moom ak sellu dalen moom ak doomi sellu dalen yi gis nga kii kii ci campagne bi lañ ko indi fii lañ ko indi ci dëkk bi kii nekkul waa dëkk bi eh, Panjanko nañu xool naka la ñuy Eh, defe situation bi xaaral ma seen la fi photo boy bi ak sellu dalen ak jabar sellu dalen moom ak jabar sellu dalen moom ak sellu dalen moom ak doomi sellu dalen yi gis nga kii kii ci campagne bi lañ ko indi fii lañ ko indi ci dëkk bi kii nekkul waa dëkk bi eh, panjanko nañu xool naka la Eh, defee situation bi xaaral ma seen la fi photo boy bi ak sellu dalen ak jabar sellu dalen moom ak jabar sellu dalen moom ak sellu dalen moom ak doomi sellu dalen yi gis nga